Euh, seen taalibe euh, Clédor seen Amadou Clédor Sène moo ñëw di waxtaan ak yéen ci euh, koom-koomu région de Diourbel te dafa laal lu lu lu moom tu moom moomee lu Touba pour dugg ci xolu waxtaan bi Touba Diourbel région de Diourbel yëpp dafa toog ci petrol ak gaz boo xam ni feeñ na fi bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg euh, waaye 2013 euh, euh, lañ ko joxe président Macky Sall moo ko joxe mu ngi ko jox benn société bu tudd AZ pétrolem donc moo tax ñu ñëw ak décret yi nga xam ni moom la signé pour joxe région de Diourbel boobu li ci nekk ci gaz ak pétrole contrat yi tamit ñu indil leen ko ak lépp li nga xam ne. mooy mandargaal ni joxe nañu bloc yooyu léegi li ci doy waar mooy état Sénégal 10 pour cent rek la ciy am léegi pour yokk li mu ciy am euh, dafa sukkandiku ci ay ay ay loi yu yu a ñàkk fayda pour am ci ay astour bokk na ci euh, booy signé ñu jox la un million de dollars maanaam six cent millions bokk na ci ay somme trois cent mille yu ñu jox trois cent mille dollars yu ñu jox at bu nekk euh, maires yi yeeg communes yi pour ñu financer ay projet de société yu mel ni ay hôpital ak ay école ak yu ni mel te te kenn déggu ko kenn gisu ko euh, bokk na ci ay xaalis yu ñuy jox Petrosen pour informatique matériel informatique bokk na ci ay xaalis yu ñuy jox ministère bi pour euh, formation te loolu dafa laal fukki contrat ak ñeent yoo xam ne bu ci nekk dana joxe deux cent mille pour informatique trois cent mille pour collectivité locale yi cent cinquante mille dollars te dollar laay wax loolu yëpp dollar la cent cinquante mille dollars pour euh, formation ci ministère bi mais li ci gën a doy waar mooy dañ ko sas société boobu tudd AZ Petroleum te soxee ko Nigéria état Sénégal daf ko sas muy fay lu yaas ci suufu Jurbel kilomètre carré bu nekk day fay quinze dollars te région de Diourbel yëpp euh, euh, juróom-ñaari junni kilomètre carré la ak lu topp ak ñeent téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci kilomètre carré mooy région de Diourbel léegi kilomètre carré bu ci ne day fay quinze dollars at mu ne ci ndorteelu at mi année contractuelle mooy dat bi ñu signé contrat bi ca la ñuy compter ni at bi ca la door. donc léegi loolu euh, moom ci la état bi di am lu dolleeku ci 10 pour cent mais xaalis boobu au lieu mu jëm ci waa Diourbel ci Petrosen la jëm benn société boo xam ne société état bi la donc société Petrosen moom mooy fayeeku lu yaasu suufu région de Diourbel yépp euh, juróom-ñaari junni kilomètre carré ak euh, ñeent ñeent ñaari téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci ay kilomètres carrés léegi li ci doy waar mooy euh, ci biir région de Diourbel dafa am tiitre foncier bu ñu tuddee Touba parce que Touba dafa di titre foncier kon Touba waroon nañ ko beddi ca la ñuy loué waroon nañ ko dindi ca la ñuy loué mais bu ngeen xoolee euh, carte bi ñu def ñoom da di gis ni région de Diourbel yëpp yëpp yëpp yëpp la ñu loué bàyyiwuñu benn benn benn prox ndoll boo xam ne dañuy mën a njort ni euh, bàyyi nañ ci lu ñu luweewul kon loolu euh, mooy mooy mooy mooy solo bi ëpp ci communication bi ñuy bi ñuy def nii ngeen ko gisee nii lii mooy carte bi euh, région de Diourbel yëpp ngi nii rectangle la 17 265 kilomètres carrés kilomètre carré bu nekk di ci fay 15 dollars amul benn porox bu ñu dindi amul lenn luñ ci luñ ci dindi lu ñu changé ci carte bi te yi ñu bind nii ci suuf mooy mandarga coordonnées géographiques maanaam ni ñuy ni ñuy positionné euh, région de jurbel ci carte bi pour firndeel ni amul lenn lu luñ ci wàññi euh, pour wane ni Touba bokk ci kon lii mooy li état du Sénégal signé ak AZ Petroleum mu concerné euh, suufu Touba ak li ci nekk ci koom-koom maanaam pétrole ak gaz léegi pétrole ak gaz boobu nag euh, moom la état bi fas yéene séddoo ak société bu ñuy wax AZ Petroleum léegi téeméeri bërigo yu ne yu fi yu fi yu fi ball société boobu dafay am lu mu néew néew néew néew néew soixante quinze baril yi maanaam Euh, juróom-ñaari fukk ak juróom ci bërigo pétrole lay am ci téeméeri bërigo yu nekk yu fi génn ni mu koy amee mooy ci contrat bi dañu fësal ni balaa ñuy séddoo toq petrol société bi nga xam ni dafa dafa dafa dafa def xaalisam ci seet ak ngacc petrol day fayeeku la ma ca def te ci kaw fayeeku boobu lay lay lay lay téq juróom benn fukki barigo pétrole léegi ñeenti fukki barigo yi des Sénégal da ci am fukk muy 10 pour cent yi seen am mu des fanweeri barigo léegi fanweeri barigo bo yooyu dañu dañu ubbi dañu dindi euh, dañu dañu tënk benn benn tableau buñ koy séddoo léegi bu fekkee ni dem nañu ba euh, juróomi euh, fukki junni 10 000 barils de pétrole état Sénégal da ci am 38 pour cent maanaam téeméer yu nekk da ci am fanweer ak juróom-ñett bu fekkee ni la fay ball weesuwul fukki junni bërigo léegi bu àggee ba ñaari fukki junni bërigo Sénégal day am ci téeméeri bërigo yu nekk juróom fukk société AZ Petroleum am juróom fukk donc maanaam genn wàllu fanweeri bërigo ya des la ñuy séddoo ci digg bi ku nekk am ci fukk ak juróom moo tax ma ni en moyenne ci xayma société bi day am euh, juróom-benn fukk ak fukk ak juróom yi mu ciy dolli moo ko def juróom-ñaari fukk ak juróom ci téeméeri barigo bu nekk loolu lay am te juróom-benn fukki barigo yi muy am du fay lempo li état du Sénégal di am mooy fukki barigo yi Petrosen di am ak la mu ciy teg tamit du fay lempo parce que état du fay du du fayeeku boppam lempo léegi fukki barigo ak juróom yi nga xam ne. mooy dolleeku ci juróom-benn fukk yi société ba am boobu rek mooy fay lemp kon loolu doxalin la boo xam ne suñu alal daf ñuy rëcc léegi nag man dama jàpp ni suufu Touba au lieu ñu koy loué di ci fayeku lu yaas di ko jox société bu ñuy wax Petrosen ci lu waa Touba yëgul tinul ci lu waa Jurbel yëgul tinul mënoon nañu bu ñu bëggee jëmale réew yi kanam euh, gox goxaan yi kanam fu mel ni tuubaa nga xam ni dafay faral di tàng mënoon nañ fi bënn euh, ay ay ay teenu gaz yoo xam ni day dawal ay usine courant nga xam ni courant bi dafay yomb te yem ci Touba yépp nga xam ni ku mu neex yendoo taal climatiseur fanaanoo ko taal te du fay lu cher du fay lu passé junni weer bu ne nga xam ni ouvrier bu mel ni menuisier métallique nga xam ni courant triphasé lay utiliser 380 nga xam ne ay facture am day dépasser ay trois cent mille par mois dana mën a am ay factures yoo xam ne du àgg sax cinquante mille kon dana économiser lu tolloog salaire ci courant kese kese kese rawatina liggéeyam dana gën a xéwale ci ñay ci ña koy sàkku ci ñu muy liggéeyal donc yooyu yëpp ay anam na lu ñuy mën a euh, euh, développer euh, réew lu ñuy mën a yokkee koom-koomu réew ci nu ñu koy yoree ak nu ñu koy doxalee te loolu du woon tere sax état bi mën cee am dara. comme moom day am dafa bëgg a taxe rek taxe mën na ko wutee feneen parce que loolu lu nit ñi war di waxtaanee la euh, parce que politique fiscale maanaam politique juuti yu état dafa teguwul ci yoon parce que mënuma comprendre nga yoon importer Mercedes S500 nga xam ni produit de luxe la nga jëlee ko bitim réew indi ko fii muy fay TVA 18 pour cent butéelu ndox bi ngay. yónnee boutique ba pour pour naan boo maree bay ba sonn ci tàngaay bi moom tamit muy fay TVA 18 pour cent kon généralisation boobu sax dañ ko war a seetal parce que bu njëkk am na produit yoo xam ay 2 pour cent am na produit yoo xam ne kenn sax daaw ko taxé mais tubaab bi moo ñu indil loolu pour wàññi suñu doole pour gën ñoo noot pour ñu gën a dépendre ci ci moom moo tax Claire Vision gindi askan bi euh, taxawaayam dafay xaaw a dëppoog taxawaayu tuubaa ca kanam. Euh, parce que euh, lu jëmale gox ci kanam boo ko defee ci gox gu ne dana mën a jëmane réew mi yëpp ci kanam wàññi boo gis nag ci benn lay doore te te suñu sang sëñ Touba euh, liggéey la def muy doctrine murit loolu moo tax man ma am yéene ñëw fii weccoog yan xalaat ca li yàlla dëxëñ ci suñu biir suuf si ci seen suuf si te ñu koy jëfandikoo ci lu ngeen xamul ci lu ngeen yëgul te waroon leen cee tàggu te waroon leen ci boole kon jëm bi jamono gannaaw bi ngeen xamee li yaakaar naa ni ay jéego ay kilifa danañ ko ci dox ba li war a dellu si ci waa Touba li waroon a dem ci waa Touba dellu si ci ñoom te ñu penco mbir mi xool naka lañ koy doxalee dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg parce que titre foncier euh, moomeel la bu kenn mënu la jalgati. moomeel la bu benn état mënut a loué moomeel la bu benn état mënut a def benn transaction te amu ci ndigalu boroomam kon boog euh, loolu moo doon maanaa waxsaan bi tey ci waxu euh, Touba.